alors Dieye ba tey ñu daal di leen di indil rek lépp loo xamante ni xew na ci guddi gi fii tey euh, maa ngi toog ak nag euh, yeneen ñaari xale yoo xamante ni ñu ngi bàyyeekoo bàyyeekoo Louga euh, kenn ki mi ngi tudd Liki keneen ki après. tur bi Cheikh la mais ñu nekk ay ndaanaan yoo xamante ni un peu partout sur les réseaux sociaux ñoom xam nañ ko mais Liki est-ce que doomu introduire li tax ñëpp xàmmee la ba nga ñëw tey fii nag. ndeysaan maa ngi nuyu nag ñëpp di nuyu sama yaay ak sama papa di nuyu Dior di lii nag lékki-lékki nag daa am fu mu ne. ndax danoo toogoon di ataaye. Uh-huh. xam nga rek Papa sama benn mag ni ma kaay way lii. Mm-hmm. mu soof ñu way ko affaire bi dem. xam nga rek ba mu demee sama yaay sax da si doon jooy. Uh-huh. bëgg ko sax. mu gis moom ñu invité ma benn télé rek mu kontaan. ni ma yow doomu géwël nga. demal dara du billaahi mu mel ne tey waa Louga yëpp kontaan nañ Cheikh macha allah euh, mais mu nekk loo xamante ni fierté la bu mag tey seen présence fii bàyyeekoo luga pour la première fois mu am euh, ban ressenti la Cheikh am ak liki waaw bi lay bu mag parce que ñun suñu famille bëri na artiste mais mën naa ni tey ñu ngi doogay nominé ku dëkk Louga kon loolu fierte bu mag la si ñun di wax ni nag kontaan nan waaw li day wane ni ñun dañoo war a liggéey rek jël ko rek yóbbu ko Louga incha allah. yow su ma dañ ne yow yaa féete woo kebatu gi. waaw maa nekkoon naan ay daa may neex yu neex yooyu. maa doon kebatu may bala ñoo jeex na. jeex na Liki euh, son bi ngeen reprendre at ma dégg ci ñenn ñi xam nga ma de suis pas trop branché ñu ne euh, ci Samba yi la jógee mais bi ngeen koy defaat nan la demee woon commencement bi. son Liki bi wala jubóo leen. jubóo leen. dëgg la jubóo leen daam Cheikh Cissé moo toog rek daal ma. nan dem mi fa benn tiktok ku soof uh-huh. ñu dégg lu naan mi fa bi la wala wala liki liki la faye liki liki daa danoo toog benn daan may woo daan ma waye li ma way ko mu dem gars yi du ko partage du ko partagé sur si seen ma liki lii dem mi ngi am buzz kan dem dugal ko son ñu dem dugal ko son affaire bi am ay millions de vues ñu daal di dem clip ko mu neex. macha allah dëgg neexul. bi mu amee ba pare ba mu génn euh, nan la ko Samba gisee wala ba tey amoo goo leen chance su toog euh, parce que neexoon na trop vraiment. waaw dëgg neexul gis nañ Samba nag Samba seet nañu ba sunu kër. Ah. Ah, waaw nañu ba moom borom baax la. Mhm. seet nañu ba sunu kër. Mhm. conseillé ñu lu baax. wax ñu lu baax ñu foto moom kafre dëgg neexul. yéen tey yéen ak ñan ak ñan ñoom yéen yéen la ñu nominé ci seen vole bi ngeen nekk. ay ñoom Seydi Diop ay ñoom Bastou. <laughs> c'est dëgg neexul. dégg bien yow moom fi mu ne tu es jàpp nga ne mbir mi moom ci kàttan yàlla mën nga ko yóbbaale Louga. Ah, man moom te yaakaar. mën naa xaay seen yóbbu ko très bien te day nekk incha allah alors Cheikh ñu ñëw dégg nga li kilim mu wax. nee na ndam li jommul kenn. waaye tamit fierté rek dèjà ñu boole la ci ñi nga xam dañ leen di tabb pour indi leen fii. Euh, ressenti bi wax nga ko tout leen l'heure mbégte la euh, tey euh, bis boo leen ko demee ba jël ko li mu nar a am impact impact yu positif yi mu am yi mu nara a am ci seen carrière est-ce que yéen a ngi koy bàyyi xel aussi. waaw ñu ngi koy bàyyi xel. ndax dèjà ñu ngi waaj loo xamante ni son yoo xamante bu buñ ko jëlee ci jàmm. ñu ngi bëgg a def tournée Dakar fii def fépp. waaw di ñaan yàlla ñu jël ko nag waaw. mu neex dëgg neexoon. ma sama internet yi nga xamante ne man yàgg liki lu tàng jër lu exclusif avant ñuy commencé wala bon. Cheikh Cissé dafa génne fecc bu bees. loolu la muy xale bu ko fecc moom may ko junni. Alxuraan sagit dala fa saas cër jënd doxal wuy sama nday salki salkil jeex na jox aca léegi léegi yow loo may may léegi léegi léegi faaya sama xol bi yaa ci cerere <laughs> <laughs> alors mi ngi noonu merci beaucoup dañ koy kontaanee dañuy ñëw jëlaat keneen ñoo xamante ne dañoo bokk rek si ñu nominé Yanka pour waxtaan ak ñoom avant ak après ak pendant lépp di ngeen ko mën a am live en direct sur Sénégal 7 à tout à Petit Topette. Petit Topette. Et Sina. Et Sina. On regarde l'élément. Rail Musique, révélation de l'année 2020. 2020, sixième édition. On regarde l'élément de la catégorie, catégorie révélation de l'année. Il s'agit de Sorou Bébé. Sorou Bébé. Naradjouf. Naradjouf. Elias. Elias. Dimra Pezi. Dimra Pezi. Amira Abed.

alors bëgg nga ko rappeler parce que mënoon naa laisser dans la vidéo bi day nekk. day xaw a téléphone. mais mënoon naa fàttali très rapidement li nga xam ne ñoom ñu leen leen ci Raya Music Awards édition bu 2020. Euh, catégorie révélation. alors nous avons Sokho Bébé. Nara Diouf. El Jazz. Dim Rabesi. Amira Abed. Amira Abed. Son Altesse. Son Altesse. Petit Omène. Essayant. Directement du contenu. Oui. Qui c'est qui a l'enveloppe pour la catégorie révélation C'est Monsieur Coco. Vous pouvez venir par là, s'il vous plaît Merci. Monsieur Bokoum, moom mooy wax ban artiste moom révélation de l'année Raya Music Awards édition bu 2020. pour les femmes. Il y a pour les femmes et pour les hommes. Dimra Peuzzi pour les femmes. Dimra Peuzzi. mais boo ñu boo a gaaw ñu ñu. ñu ngi ñëw doon boole bu ñu le Raya donné ça monsieur Koundoul euh, monsieur Bokoum il va d'abord remettre le Raya pour les hommes après on passe au Raya pour les femmes. à ah, ces jeunes on a la photo. seconde est les jeunes dames, ici qui est la révélation de l'année. Aoumira Abed. Aoumira Abed. Aoumira Abed est la révélation féminine de l'année. Voilà nous euh, la télévision. Bravo. Aoumira Abed. Bravo! Alors, monsieur le directeur du cabinet du ministre de la, de la, euh, pardon, de la et la photo. Merci beaucoup. Vous pouvez regagner vos places, messieurs. Merci. Alors, tu feras, on sera votre fois tout à l'heure, juste le temps du playback de Amira. Si on peut le caler, c'est bon On l'a ou pas On l'a On l'a pas Qu'est-ce qu'on a On l'a pas C'est dommage. D'accord. <laughs> Merci beaucoup. Merci Amira. Et bravo. Félicitations. Merci beaucoup. Manu. Oui. de revenir à cette étape.